mbégte àndat ak yéen ci àjjuma ji jàkkaarloo bi war a waxtaanee li gën a fës ci ay bës bi lenn li gën a fës ndax bëri na waaye faw ñu seppi ci lenn rek euh, daal di koy euh, waxtaanee ñu am mbégte dalal ci waxtaan woowu daw Gueye daw Gueye moom ci FRAPP Euh, France dégage la bokk bokk tamit ci aar li ñu bokk daaw da ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, der di fay tamit di nuyu tamit ñu nekk ci euh, jataay bi yëpp tey ñaan yàlla waxtaan bi ñu fi waxtaan amal njëriñ askan bi hmm, li tax may jaar ci tur yi xam nga ak masque yi c'est pas évident ñu ñu xàmmee ñu xàmmee ñi toog hmm. président Amnesty International section Sénégal it ngi fii Amadou Diallo lay wuyoo maître Diallo nuyu naa la. waaw euh, fay naa la di la gërëm ci invitation bi di nuyu ñëpp ñu nekk ci plateau bi di nuyu téléspectateur TFM particulièrement émission jàkkaarloo euh, di ñaan yàlla waxtaan bu ñu fiy jëlee amal njëriñ askan wi. incha allah alors euh, Zator Mbaye ancien député ministre conseiller à la présidence de la République. Zator ñu ngi lay nuyu. waaw mais Pape Abdoulaye maa ngi lay nuyu di nuyu gars yëpp ñi nga xam ne ñoo ñu wétali tous les vendredis. Mhm. ma ci profité di leen félicité ci émission bu am solo bi. Euh, di nuyu également ñi nga xam ne ñoom la ñuy seexal waxtaan wi xam nañ ne waxtaan wi dana dana am solo dana am njëriñ pour askanu Sénégal parce que loolu lañ ci loolu lañ ci jublu mais également di wu li nga xamante ne nii mooy euh, ñi nga xam ne Covid baa ngi leen di laal ñuy ñuy génn àdduna yal na yàlla yërëm xaaral leen àjjana bu baax a baax. Mm. Mm. alors euh, Zator ñu ngi lay gërëm di la di la sant li nga aakimoo nii lañ may laaj buuba xaw ma nag nu ñuy def ba jottali ko ñi nga xam ni ñoo ko soxla jamono ji alors euh, li ñuy njëkk waxtaanee rek euh, mooy corona bi jamono ji tour de table jàll ci thème bi balaa ñuy yegg ci thème bi corona bi jamono ji dañ gis ni faatu yi dafa accéléré wu. ci fan yi ñu génn 14 14 ci ñetti fan bu ñuy xayma su ma juumul tey ji ñu ngi ci 79 muy loo xam ni jaaxal na jaaxal na nit ñi cas grave yi tamit dafa mel ni mi ngi mi ngi yokk mu yemook tamit xibaar goo xam ni ci bëccëg bi moom la ñu yendoo directeur de cabinet bu ministre de la justice euh, de la justice justice ñuy wax ci kanam a tax euh, de la santé Abdoulaye Diouf Sarr euh, dafay dem OMS foofu lañ ko tabb Euh, donc docteur Aloyse dafay euh, tàggoo na euh, loolu siiw na léegi alors ñu bëggoon a laaj rek ñu jàpp ni corona bi xëy na dem bi ni mu ni mu yemoog est-ce que est-ce que jubu na ma commencé ci yow gan gi. alors <laughs> dama jàpp ne bésum tey bi xam mhm. na ñi ñi fa ñu doon liggéey ci pour dem feneen bëri na pour man jàpp naa ne loolu du événement. Mhm. Euh, te li ma déglu moom mu wax ko à la lumière de ce qu'il a dit mooy naroon na dem bu yàgg donc euh, dafa am poste beneen mu war a dem comme chaque jour ni ay nit jógee organe de presse bi dem organe B wala jógee société bi dem bële pour moi c'est un non événement. mais lu commencé organe bi. non non waxin rek non waxin c'est-à-dire juste pour dire juste pour que juste pour dire que jàpp naa ne docteur Alius voilà on lui tire notre chapeau parce que c'est un technicien de la chose gis nañu fan yi min nañ ko ci communiqué yi gis nañ liggéey bi mu doon abaat aussi auprès de son ministre et on est sûr que fële mu jëm tamit mais dafay nekkal Sénégal man li may xalaat mooy surtout ñu ñaanal ko vraiment mission bu bees bi yàlla jàppale ko ci parce que boo fa amee ndam c'est c'est le Sénégal mm. leneen li nag sur les cas je pense que ñu ngi autour de huit à dix pour cent fan yi boo xoolee toujours ñu ngi à peu près ci benn tendance boo xam ne dafa stagné ci entre huit et dix pour cent fa la nekk tantôt nii tantôt nii mais jàpp naa ne ba léegi bu ñu continuer les mesures barrières parce que amaguñu nag garab gu koy faj. Hmm. loolu tamit il faut ñu il faut ñu noter ko amaguñu garab donc ba léegi masque yeeg gel yeeg. espacement yeeg je pense que loolu mooy la solution alternative en attendant justement hmm. d'arriver à la solution curative alors maître waaw euh, je pense que situation bi quand mu muñ ko dundee nii cas yi ñuy yokk desee yokku euh, franchement ça ça ça inquiète les Sénégalais. Mm-hmm. et je pense que quelque part aussi peut-être que euh, assouplissement bi état yu jël par rapport aux mesures qui avaient été prises pour éviter la circulation des, des citoyens mm-hmm. xëy na parce que bon je pense qu'il faut du recul pour faire un diagnostic pour xam exactement ndax loolu wala loolu mais en tout cas peut-être que loolu joué na ci situation bu mel nii Euh, muy seetlu tamit même soo xoolee au niveau des juridictions IME pratiquées euh, très régulièrement euh, soo xoolee on avait ici de Dakar en tout cas on avait commencé on avait repris les audiences mais malheureusement des cas avaient été détectés au niveau du palais ñu suspendaat audience yi ba tax na ma jàpp ni peut-être que c'est vrai qu'on ne peut plus reculer parce que bon activité économique il faut mu redémarrer mais il faut peut-être appeler l'État mm-hmm. à aider mooy sur les moyens pour les mesures barrières parce que c'est pas tous les Sénégalais qui ont ces moyens-là malheureusement et institutions yi tamit euh, ñu taxaw ci parce que soo xoolee euh, soo demee ci brigade yi dem ci commissariat yi euh, c'est vrai que am nañu ay gel hydro hydroalcoolique am nañu aussi ay masques mais ba tey promiscuité bu ci nekk c'est pas rassurant mm. c'est pas rassurant et parfois même état de salubrité lieu yooyu ça pose énormément de problèmes surtout que dina am ñi nga xamante ne nekk ay lieux de détention et loolu quand même ça peut constituer une menace pour leur santé surtout que ñoo nga xam nañ dañ nekk en mesure de garde à vue su leen placé ah, sous mandat de dépôt dañuy dem prison xamante ne foofu population bi nu mel doy na waar donc mën nañ ko jëlee si biir dugal ko ci biir même si en tout cas à notre connaissance on n'a pas encore relevé de cas euh, euh, de contamination au niveau des prisons au Sénégal en tout cas Euh, ñu ngi siy sant yàlla baax di rafetlu liggéeyu administration pénitentiaire bi mais nag dañu war a gën yokku nest euh, euh, disposition war a jël pour permettre éviter le maximum de de, de circulation de la circulation du du virus. li ma ciy wax yaakaar naa nun waa FRAPP bi mbas mi accès fii ci Sénégal li ñuy njëkk a wax moom mooy bi ñu seetloo ne li mu ñu ñuy caaf maanaam ñi ñuy dépisté ngi seet wax am nañu wopp ji néewoon na loolu te ba léegi dafa néew buñ ne laa Sénégal. Euh, fere yi maanaam population yi ñu ngi toll ci euh, euh, fukki million ak juróom-benn te ñu ngi ci a caaf mataguñ juróom-ñaar fukki junni nga xam ne kon li nga xamante ni moom la wax ne moom mooy limu ñi am wopp ji ëpp na ko fuuf li koy firndeel mooy li nga xamante ni dañ naan ñu ñu la te kenn xamul ku leen wàll te lim bi di gën di yokk. Mm-hmm. wóor na ne kon lii di xanaa ndoxum mi maanaam virus bi mi ngi dox ci biir askan wi. Mm-hmm. di wàllante te xamuñu fan lay jaar moo tax ñun waa FRAPP ca teel dañoo demoon bañ ko waxee kenn fulaaluñu dem juree ji fële ca këru atte atte attekaay bu euh, kawe bi euh, porte fa plainte muy cour suprême euh, lii di càmmuk Sénégal nekk kat dañ koy woo ci mu yokk caaf gi yaatal ko ba nga xamante ni bu ko defoon jamono jooju amaana dinañ mën a xam ñan ñoo amee wopp ji te itam dinañ mën a xam tamit lii di wàllaate bi fan lay jaar bu ko defee ñu mën a xam nan lañ koy peegee maanaam maîtriser ko ba mën a faj noonu defuñu loolu moo tax daal mbir yi euh, dem nii ba nga xamante ni fii ñu toll nii lim biñ ñuy jox muy limu ñi nga xamante ni dañ leen a jot a caaf muy limu ñi nga xamante dañoo am wopp ji ak ñi nga xamante ni jot nañ cee wér lépp lim la boo xamante ni buñ koy euh, fàttali nañ ko wéer ci lan mooy na kat ci fukki million ak euh, juróom-benn sa Sénégal yi ñu ci jot a caaf matuñu lu dul juróom-ñaar fukki junni mm. loolu nag moom moo tax ñun ni ne kat wopp ji dana fi yàgg lool lool lool lool lool ndaxte loolu waxuma ko kii di euh, docteur Seydi yaakaar mm-hmm. naa ne moom moo ko wax ci caabal gee di euh, euh, tv cinq tey mm-hmm. ah, ne nañu pare tax xam ne mbir mi waaw toog na fi mm-hmm. ba noppi te loolu lañ doon bañ te ñun waa FRAPP li ñu jàppoon ne moom moo mën a tax ñu mën a peeg wopp ji mooy teel yaatal caaf gi maanaam dépistage bi bu mën a xam li mu ñi nga xamante ni ñoom ñoo am wopp ji jàng naa moo bu bees caaf nee na alors Charles ni mu ko waxee professeur Seydi sànq nee na cas communautaire yi ñoo ñoo gën jaaxal ba ci cas communautaire yi du duggee la ñu la ñu dépassé complètement Charles Aïcha bismillah bon bon man xanaa dafa am wax boo xamante ne wax bu wax bu yàqu la hmm. euh, duñu perte suñu temps si loolu en tout cas man personnellement du mu si perte sama temps euh, bu may posé que le vrai problème boo xamante ne moom la ñuy jàkkoonteel tey mooy les cas graves ça fait plus deux mois mooy les cas graves accent si cas grave bi parce que mënoo tere feebar bi dem lu muy dem am na ay sénégalais yoo xamante ba léegi gëmuñu ko feebar baa ngi fii dañ koy wax il faut voir les réseaux sociaux et tout ça ñu di weddi feebar bi di am ay comportement maintenant le vrai problème boo xamante fan la nekk mooy si ñoo xamante ne dañoo ar feebar si ñoom ay feebar de comorbidité te ma la ñu bëri ay sénégalais di nga fi am ba 40 ans 50 ans xamoo ko am nga diabète xam nga ko am nga mhm. hypertension ba mu daan la mhm. waxatuma la nag affaire bi ñëw fekk yow nga yor jàngoro ay nga yor ay feebar te xamoo ko mhm. mu ñëw dugg sa yaram le moment bu ngay jóg di dem si docteur bi ñaari fan wala ñetti fan yu ngay ñàkk yooyu mais loolu mooy indi mooy indi mun na indi problème yu rëy sans compter que personne yu âgé yi keroog maa ngi fi doon ne <laughs> il y a deux semaines mooy que ñu ngi gis ay nit yoo xamante ne ñu ngi am 40 ans di faatu waaw loolu yëpp c'est dafa ay question yoo xamante ne qui mérite des réponses mm. wante pour ñu gën a sensibiliser sensibiliser nit ñi euh, du dootul rek question d'état c'est juste aujourd'hui mooy ku si nekk nga mën a sensibiliser sa morom sa waa kër parce que bu ñu toogee kër boo xamante ne nga app fa ay mag wax dëgg yàlla les risques pour ñoom ils sont énormes am nga ñoo xamante ne dañ am feebar te xamuñu ko donc est-ce qu'il y a une chimioprévention à mettre en place je pense que loolu wax nañ ko fii depuis depuis plus d'un mois beneen affaire boo xamante ne bon il faut on ne peut pas arrêter Sénégal mënul taxaw tey ne marché à contre-courant de ce qui se fait am na des dispositions mais kooku dafa woon aussi que amuñu ko il va falloir peut-être avec l'avenir ñu xool concernant le docteur euh, Aloïs di ko ñaanal fu mu jëm gënal ko parce que euh, def na liggéeyam je pense que pendant trois mois on a vu un homme boo xamante ne il a eu des rendez-vous quasi quotidiens ak sénégalais yi assumé def lu muy def euh, il n'est en rien responsable parce que de cette affaire au na liggéeyam man loolu laa jàpp maintenant euh, et je l'avais dit ici à un moment que Sénégal amoon na loo xamante ne bu ko defee itam mun na am ñu nekk benn benn genre référence et je pense que ce n'est pas encore perdu. Hmm. il faut analyser seulement. allez Pape Djibril nuyu naa la ziar la. di la ziar. donte tey tasewuñu <laughs> suñu bërëb ba. ay bul may grand bi mu wax. <laughs> mu ne bul may grand bi lu mu ah, wax. non moom laay centré nii tey dam la centré alors 79 <laughs> décès au dernier décompte ci point de presse su suba bi 16 cas communautaires jaax jaaxle jaaxle nañ ci mbir mi. man question bi ma doon bi may posé mooy bi ñuy posé depuis le début mooy est-ce que on a totalement fait confiance à la science dans cette affaire depuis le début et on a est-ce que boo déggee li professeur Seydi wax te waxee ji ko TV5. te fii xëy na am na loo xam ba mu ko junjee depuis Ziguinchor gis nga ñoo ngi tudd Aloyse léegi gis nga coup de yi nga xamante ni dooroon nañ ko ko fii hmm. ba finalement dafa mel ni dañu daw sax ñoom léegi parce que xëy na scientifique yi ñoom mënuñu intégrer les éléments de langage du politiquement correct. loolu ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk constamment ci déni de la réalité ñoom ñoo ci nekk alors que à un moment donné pour ñu dimbali suñu bopp dimbali askan bi dimbali ñëpp il faut qu'on nomme les choses. Hmm. et souvent loolu duñu ko def li mu nekk duñu ko tudd dañuy wër-wërloo rek ci biir parce que li tax ma ne est-ce qu'on a fait totalement à la science dans cette affaire et aux scientifiques jox leen plein pouvoir yi mooy le pic dafa nekk débat ba keroog bi Moubarak Lô ñëwee fii ñu finalement on peut on peut se retrouver avec deux pics wala trois pics alors que nit ñi parce que hmm. ci crise sanitaire lan la ñuy natte pic du le nombre de morts jàpp ne egg na foo xamante ni mënatu koo weesu hmm. jàpp nañ ne on en a suffisamment appris que fii moom egg nañ ci foo xamante ni am nañ ci expérience am nañ ci xam-xam boo xamante ni on peut même envisager de vivre en présence du virus et que boobu ba tey pic bi la nit ñi di xaar su fekkee ne pic égal nombre de morts boo xamante ni jàpp nañ ne mënatuñ ko weesu kon est-ce qu'on nous a dit la vérité ndax wax nañ ñu dëgg ci lii nga xamante ni moom la ñuy dund tey pour man c'est une grande question boo xamante ni am na ci te loolu dafay laaj systématiquement beneen question bi mooy est-ce que y avait une planification aussi dans cette affaire wala est-ce qu'on l'a vécu au jour le jour parce que dafa am tentation bu bëri boo xamante ni en temps de crise dafay dal gouvernement yi mooy dañ naan attendon la réalité nous dictera la conduite à hmm. tenir bi moom moo ñuy wax fi jaar est-ce que loolu la ñu dund tey est-ce que voilà parce que gis nañ professeur Seydi li mu wax ni tey bu fekkee ne moom mooy euh, moom la ñuy dund en fait ak li nga xamante ni bu taxawee ci conseil ci conférence de presse xëy na ak ni ñu koy waajalee ak ak communicants yi nañuy waajalee élément de langage ak yooyu le discours dafay am benn contraste boo xamante ni dafay mel ni bële dañ koy bousculer pour mu génne li nga xamante ni moom moo ci nekk. je pense que daal euh, euh, yaa a y' a yoo xamante ni mm. surtout par rapport ak pic bi parce que dina permettre ñëpp ñu xam nan la ñuy toogee dina permettre aussi ñu xam stratégie bi nan lañ ci évoluer. alors 164 nouveaux cas bu ñuy seet kon wàllante bi mi ngi law 164 16 cas communautaires ni mu ko waxee Papis ñu ngi lay nuyu di la ziar bismillah sa kàddu ci euh, tolluwaayu corona bi jamono ji ci Sénégal. waaw tolluwaay bi de xam naa ne. ñun ñëpp je pense ñoo ko ñoo ko gisandoo déjà damay commencer fi honorable waxoon c'est important euh, jaare ji euh, am ay mbokk yu si yu si wàññeeku et tous les Sénégalais parce que c'est un problème de du Sénégal quoi ñëpp ko euh, bokk man damay taxaw ci rek les constats parce que pour man aujourd'hui man boog personnellement j'en suis à à à l'étape de de la constatation damay xool li xew di interpréter Euh, en rappelant les assouplissements qui ont été euh, pris par l'État mu accompagner peut-être la crise avec ses inconvénients ses avantages yàlla rek moom moo moo xam ce qui reste constant et évident mooy aujourd'hui on vit avec le virus euh, c'était un spectre il y a quelques semaines un spectre mais c'est devenu une réalité Euh, et que la seule consolation wala voilà, la seule euh, mesure de prudence mooy respecter peut-être les, les gestes barrières étant entendu qu'aujourd'hui dafa am ay cas communautaires yoo xamante ni euh, c'est c'est c'est une réalité tu peux pas xam loolu noo koy def lu dul prendre le maximum maximum de mesures possibles comme ni mu koy waxee chaque fois depuis l'entame depuis le début de la pandémie li ci des nga bàyyi si ci loxo loxo yàlla. Mmh. à l'impossible ni le tenir tu fais tes gestes barrières li nga mën le maximum. ci des nga nga bàyyi ko si loxo yàlla quoi mm. donc euh, man c'est ça ma philosophie aujourd'hui di xaar di ñaan nag le plus rapidement possible mu dem di lorgner également au, au niveau des, des des chercheurs parce que man chaque fois damay xool je j'essaie de m'informer pour voir l'évolution du vaccin en tout cas les infos que nous avons que mm-hmm. connais am na brin d'espoir benn yaakaar boo xamante ni dans un avenir bon pas très lointain je pense que on on pourra en arriver à ce niveau et de façon définitive corona bi jóge fi benn aspect mooy sur le docteur moi je crois que c'est quelqu'un qu'on doit féliciter docteur dañ ko féliciter et la raison pour laquelle nga nga nga inclure ko si euh, si menu menu émission bi ça veut ça veut ça veut tout dire cest dire si c'était un cas de bon débarras maanaam koo xamante ni ni ñi dañuy yàqamte woon tàqalikoog moom mm. ce ne serait pas le cas muy benn euh, deuxièmement euh, c'est pas la, la, la, fin du monde. Il, il, il, quitte le fauteuil, il cède la place à quelqu'un d'autre. Mais Gatchengarama, quoi, il a fait son travail, il a fait le don de soi, il a participé à, à tout ce qui a été conçu, réalisé par l'équipe qui gérait cette histoire de pandémie. Donc euh, il n'y a aucun souci. C'est une promotion, c'est la suite d'une carrière, c'est dans l'ordre normal des choses. Même OMS, mhm. mmh. OMS mmh. euh, c'est une fierté pour les, les Sénégalais et, les, et le Sénégal. je crois qu'il faut lui dire vraiment chapeau et, bonne continuation pour, euh, euh, pour les autres stations dans lesquelles il va évoluer. Merci Papis. Bobo, bismillah. Euh, <laughs> si tey xam nga presque dawoon naa moom. moo xamul sax lu ma doon ñëwee rek. wax wax nga ba sonn kañ ni nga wax waaye di di nga liggéey si. waaw mais xam nga question bi dafay day depuis kañ 4 mois dafa naa ah, ba ajjuma bu nekk. Hmm. mooy question bi ngi lay njëkk a laaj. Hmm. finalement. chaque ajuma war nga war nga war nga wax. waaw ah, parce que chaque jour mu am lu ci bees. bu waaw moom laay wax ni non chaque jour mu am lu ci mais chaque ajuma nga nga bañ a wax li nga waxoon ci ajuma bi passé <laughs> donc c'est c'est c'est un problème maintenant euh, man damay bëgg ñuy ñuy ñuy génn ay termes techniques ay pic ak ay affaires pour man Sénégal dañu war a commencer xaw ko teg ne parce que euh, yooyu dafay dépendre aussi si sociétés yi nan la ñuy dundee te bu fekkee ni liñ ñu wax ci euh, coronavirus. moo nekk maanaam mi ngi ni muy wàllee mi ngi fi ba léegi. Mhm. doole doole jàngoro ji mi ngi fi ba léegi. après nga génn ci biti nga xool nit ñi ni ñuy dundee nga xam ni nga war a ne sa xel jegeguñ sax pic bi bu dee dañu ne daf fi nar a yàgg te day wàlle ni muy wàlle nit ñi di dundee ni ñuy dundee nga xam ni pic bi xaajuñu ko jege loolu loolay dëgg. parce que moo lay wan ni y' a y' a un mois et demi et tout ça boo déggoon 10 cas da naan ni léegi 160 et quelque ngay dégg. 164 164 du la du la du la kii loolu moom lan lan la lay wax xam nga dafa am ay jamono euh, xaw ma am na ku nekkoon Nations Unies waxoon benn. que ni euh, Afrique dinañu am peut-être ñu boo moytu ñu bëri ñu dee ci kii bi. Mm-hmm. ñu bëri génn kaas man leen kaas bi amul solo nañ fexe ba loolu bañ a am te loolu je pense que. pour ñu fexe mu bañ am il faut que tey jii nii ñu xool virus bi ñaata temps la fi nekk ak nu ñuy dundee moom te boo xoolee loolu calcul bi da lay wan que ni yoon wi quand même xaw naa sore trop. parce que nit ñi li ñuy gën a bëri di feebar naturellement moor yi di gën a parce que benn benn aspect bu gaa yi dul bu dul peut-être tenir mooy est-ce que prise en charge bi ñu amoon il a deux mois au niveau des malades amatuñ ko tey. Mm. parce que lu malade yi gën a bëri am na ñoo xam ne war nañ leen tester. testé wuñu leen am na ñoo xam ne feebar nañu. Mhm. mais amuñu fu ñu leen dugal. je pense que foofu la ñuy foofu la problème yi di amee donc mhm. aujourd'hui lan mooy suñu ay responsabilité individuelle ñun ñëpp je pense que il faut ñu convoquer loolu parce que quoi qu'on puisse dire ci état beeg ministère yeeg ñoom ñëpp. am na fu ñuy toll foo xam ne ñun bu ñu jógul suñu bopp ñun suñu bopp état bi duñu duñu duñu du ñu mën a protéger pour cent parce que déjà seen limite mi ngi commencé feeñ parce que ils n'ont pas les moyens peut-être de des milliers de personnes yu feebar en te loolu il faut ñu ñu mesurer ko maintenant l'autre l'autre question mooy fii laa gis que nii dafa am ci ay dëkk yoo xam ne foofu la feebar bi gën a bëri maanaam dañu ne dakaar ñu ne tuubaa ak fan di foofu la ñu wax Hmm. mais si biir dëkk bi si biir euh, réew mi aussi ngay dégg ay dëkk yoo xam ne amoon nañu ñaar ñetti cas amatuñ ko amat am na zéro cas mais est-ce que même stratégie bi la ñu war a def Sénégal wala est-ce que on doit quand même être pour jàkkaarloo ak dëkk yi nga xam ni moom mooy problème bi foofu la gën a méttee teg benn stratégie bu gën a bu gën a bu gën a dëgër quoi bu gën a précis parce que man pour man euh, bu ñu bu ñu contrôler dakaar contrôler par exemple Touba am na peut-être lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a téye et je ne vois pas benn benn benn stratégie par rapport ak dëkk yooyu boo xam ne vraiment wane na ni foofu la problème bi nekk ko pour man on dañuy gérer peut-être affaire bi trop sur le sur le plan national mais il faut je pense que ñu commencer quand même di ko waaw di ko cibler quoi xool vraiment lan la ñu mën a def au niveau de Dakar parce que boo génnee si biti nga xam ne li ñu war a def yëpp defuñu ko wax fa dëgg yàlla ñi nekk ci biti moom. boo génnee di xool nit ñi xam nga ni li ñu war a def yëpp defuñu ko nit ñi ñu ngi dund comme si de rien n'était ah. dëgg parce que masque bi nekkatul yor masque bi rek sol masque bi moom nekkatul nopp wax naa ko fi la dernière fois gëj naa gis gel gëj naa gis saabu ak raxasu bu ñu seetloo rek nit ñi finalement euh, masque bi tax na ñu fàtte raxasu tax na ñu fàtte gel waaw léegi am sa gel yow. nga ni non ah, ah, ah, na ma <laughs> heureusement daal man moom sama bopp a ngi nii man pour man pour man am na foo xam ne bu ñu fa toll il faut ñun ñëpp en tant ñu toog ñu ne fan la ñu jëm ak mbir mi kan ku nekk individuellement lan nga ci mën a def pour que quand même mu arrêté parce que nii ma gisee muy dem ni pic bi moom guñ ko. Mm-hmm. Malal bismillah. man de wax dëgg fa yàlla yenn saa yi damay am envie feebar bi dal ma ma wér benn yoon quoi parce que situation bi may dugal mooy. Mhm. dafa mel ni temps booy. ne la par exemple nga juddu am cinq ans ne la dans trois ans normalement war nañ la yóbbu xarafal la da ngay am envie jàll étape boobu mu jeex ko man foofu laa toll ak feebar bi. pourquoi parce que tout simplement dafa mel ni en fait feebar bi dafa xeewi. dafa xew yi ci Sénégalais yi xewatul. bu njëkk dafa xewoon. nit ñi di raxasu. di takk masque di laal gel mais li bu ba wax dëgg la c'est-à-dire maintenant ça n'intéresse plus personne tellement dañ ko duggal suñu bopp telement tellement ba finalement après dafa dem ba finalement nekkatul problème mais dama jàpp ni dañu war a xewalaat feebar bi xewalaat feebar bi mooy insister effectivement sur les dangers. yi nga xamante ne moom moo ci nekk parce que li gën a yërëmtalu parce que en fait man dama dem ba finalement yërëm état parce que état luñ ci mënti wax it c'est pas pour pour défendre l'état je ne défends pas l'état je comprends bien li Daouda Gueye di wax alerté nañ dem porte plainte yóbbu ko cour suprême et cetera et cetera mais avec les moyens yi nga xamante ne moom la état yor état jéem na def dara population bi jàpp ci mais fi ñu toll nii fi ñu toll nii mooy barkaati démb biir Touba c'est des médecins et c'est plutôt des sapeurs-pompiers des gens de la Croix-Rouge et cetera et cetera qui sont traités de n'importe comment aussi dans les banlieues les gens sont traités n'importe comment alors que c'est des gens qui sont là pour dimbali on les regarde comme s'ils étaient les ñoo ñoom ñooy ñoo waral jàngoro ji alors que plutôt c'est des gens qui nous protègent ma comprendre lan moo tax ñu war a am relation boobu ak ak croix rouge lan moo tax ñu war a am relation boobu ak sapeur pompier wala lan moo tax ñu war a am relation boobu ak ak ak ak fajkat yi mm. il y a quelque chose dans notre comportement social il y a quelque mm-hmm. chose qui ne fonctionne pas du mm-hmm. tout ñu war a ñu ñu war a interroger waat suñu société mm. ñu ne effectivement est-ce que ñiy wax ak su est-ce que est-ce que effectivement waruñu jiital ñeneen ñu ñeneen ñuy wax est-ce que fi mu toll nii waruñu sàkkuwaat ci sëriñ si sàkkuwaat ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci koñ yi te seen baat foor lool ñu sàkkuwaat ci ñoom effectivement jiital leen ci xeex bi pour ñu mën a wax ak nit ñi luñ dégg parce que quand jàpp naa ni ndaw ñi également war nañu yërëm mag ñi parce que ñi ëpp ci ñiy faatu mag ñi la 63 ans 65 mhm. ans 55 cinquante te xale yi ñooy jëlee feebar bi ci bedd mi indi ko ci biir kër gi donc na ndaw ñi yërëm mag ñi pour mhm. moi la démarche elle doit être communautaire mhm. la démarche elle doit être citoyenne on doit avoir une dañu war a nekk ay responsable parce que feebar bi quand bu fi continuer on va bu fi continuer dina graaw et on doit quand on doit quand war nañu defaraat suñu taxawaay surtout ndaw ñi taxaw ci bu baax a baax parce que soo soo xoolee li am ci corniche bi xool match de football yi am. xool effectivement mhm. conférence de presse yi am et cetera et cetera je pense ah, que quand même. war benn benn virgule rek wax fa mm. dëgg yàlla ci li pour pour tëb ci li ma la doon wax. Mm. wax fa dëgg yàlla nit ñi man suma ma rombee corniche bi seen nit ñi. Mm. ah dañu waxante dëgg. ñun aussi du ñu dal ci suñu suñu suñu compatriotes yi comme ni ñu ci war a dalee mënuma ko comprendre. Charles. mënuma comprendre ñu toll fii nga nga génn fii ci côté bi fekk fi 5000 personnes yu nekk foofu en même temps kenn defu ci benn jëlu ci benn disposition état seetaan loolu nga demaat feneen ak feneen il faut que quand même nit ñi ñu wax ak ñoom ñu xam que ni nu mu munti demee am na benn responsabilité individuelle boo xam ne kenn mënu ko teg kenn mënu ko defal nit à sa place tey jii man su ma solo je vais faire du sport mais su ma waree dem fenn mu wóor ma ni ay milliers de personnes ñoo fa nekk wax fa dëgg yàlla mm. aidé wu ma état aidé wu bopp aidé wu famille te loolu il faut ñu teg ko ci kaw bi comme accordé naa la ko euh, Zator waaw ah, mais ah, mais en une minute point virgule ah. non c'est que virgule la yow point virgule c'est que j'aime bien les analyses de Pape de Pape Djibril dans restaurant hommage un jeune vraiment machallah mm. je voudrais dire que xam naa ne les pic bi su ma juumalee c'est pas le nombre de morts mm. comme ni mu ko indiqué tout à parce que euh, xam nga feebar bi dafa bëri ay phase ba mu hmm. commencé depuis mars ak tey je ne suis pas sûr non plus que la généralisation des tests loolu mooy solution bi hmm. parce que techniciens yi wax nañ ne loolu c'est pas la solution que ñu ne non non test yi na ñëpp ñëw test c'est pas la solution pas du tout deuxième deux, deuxième élément d'appréciation qu'il y des cas graves c'est normal mm-hmm. Sénégal boo gënoon fii taxaw fukki nit buñ la rombeel rombee ku amul jabet am nga tension hmm. il y a des maladies chroniques yu nga xam ne mais ak ak asthme yeneen yi mais jàngoro ji du leen bal troisième degré euh, d'analyse sénégalais yi xam nga communication bi bu ñu xoolee fa mu déparé bu njëkk c'était centrale ñuy décentraliser président wax na xalif yi wax nañ nit ñi wax nañ mais nit ñi comme lii Malal wax dama ko d'accord il y a des gens qui ont pensé un moment donné que corona bi Macky Sall di ko attaqué di ko xas alors que non mais les comportements ci boppam la nit ñi war a changer ku ci nekk yaa war a aar sa bopp ku ci nekk yaa war a sàmm sa bopp. Mm. mais quand les gens se se donnent à cœur mm. joie nekk ci mbedd yi di def lu leen neex attaquer policiers yi parce que simplement nee na leen toog leen seen kër. ça aussi ça pose okay. un problème bu nga xam ne comme li Bouba wax la communication la stratégie nañ ko def au niveau communautaire gis nga virus bi fa laay fa laay daanelee. xam mm. nga au début des années 90. y avait un y avait virus bu dugg ci Afrique. muy le sida le VIH. les gens ont développé des stratégies communautaires à travers euh, euh, association yeeg ASC yeeg yooyu mais nit ñi fàttali nañ sax ñu bëri jàpp nañ ne sida amatul ci àdduna bi. c'est vrai qu'on en parle plus. ñoo mel noonu sénégalais moo noonu lu mu miin yàpp ko. Mm-hmm. ça aussi c'est un peu notre mm-hmm. culture à nous donc nañ ci góorgóorlu ku nekk gën a yàq pour une minute je lui avais dit et puis dafa aspect bu am solo fa laay fa laay daanele <laughs> au parle de def nga point bi léegi virgule bi léegi cas communautaire yi xam nga bëri na ñu ngi mm-hmm. naan mi ngi yokku mais nañuy jeter un clin d'œil sur le taux de guérison on est aujourd'hui à presque 67 pour cent c'est important aussi mm. ça prouve un peu la sanitaire contrairement à que avance euh, Pape parce que jàpp naa ne combat bi techniciens yi ñoo nekk à lavant amul hmm. benn décision politique benn décision administrative ñuy jël actuellement pour être précis nous avons 5639 cas et nombre de guéris on est à 3788 pour être précis voilà. donc euh, donc c'est, c'est déjà sous traitement 1771 actuellement sont sous traitement xam nga kon bu ñu yeggee 80 mhm. pour cent rek day war a nekk quand suñu système c'est vrai que jàngoro ji mënuñu koo teree dugg. mais mën nañoo fexe ba. non kii kañ deful virgule dafa def point def virgule. def à la ligne def na à la ligne. y a ah, Charles qui demande la parole. ñu def xam nga xam nga xam nga de. def sa point virgule amul problème je suis obligé. Ah. équilibre et démocratie. Ah. s'il vous plaît mais bëggoon naa ñu gaaw dépasser point boobu yeggaguñu ci thème bi. rek ñu def attention benn affaire. ça veut dire que le monde est en train de déconfiner Sénégal n'est pas un pays benn benn îlot quoi dans le monde. ni ñun ñu mënul feneen di déconfiner ñu fii ñuy confiner. Mm-hmm. c'est-à-dire xel xalaatu mënuñ ko accepter. par contre am na ay éléments dans l'analyse yu am solo 79 5000 et quelques c'est à peu près 1,3 wala 1,4 de morts par rapport à lu am boo defee projection boo demee. Pour avoir 3 000, il faut avoir 300 000. Pour avoir 1 mm -hmm. Est-ce que tu comprends 6 000 pour, pour les 2 sur 300 000. 30. 30 morts pour avoir 1 3 000. 3 000. mille boo amee. 300 000 gox non da nga ne 3 000. 3 000 morts sur 300 000 mooy 1 pour cent. Hmm. dëgg hmm. c'est des ah. projections. Ah, par rapport ak monde bi lu muy dem loolu tax ma ne 3 mois après. Euh, macha allah docteur Raoult wax na ko on a parlé des scientifiques. Mhm. on n'a pas eu de réponse des scientifiques. les questions ont été posées les réponses ne sont pas venues c'est pas de la faute des scientifiques ah. amuñu élément fii la fii benn scientifique toog te quand même le professeur Bakane ah fi toog am il y a des travaux ont été faits. Mhm. mais loolu yëpp ça veut dire que le Covid a mis dafa dafa woon loo xamante ne effort yu considérable yu ñu war a def. pour dem. lu ma jàpp mooy que macha allah nous sommes à trois mois dans le monde ailleurs en Europe ak fu ne en deux mois ça a été l'hécatombe hmm. donc am na benn résilience boo xamante ni tout à fait naturelle hmm. mooy l'écosystème qui est favorable la deuxième chose mooy loo xamante ne parce que tout simplement dafa am lu ñu jël léegi la véritable question pour man boo qui se pose à nous c'est les gens qui ont des comorbidités qui devient une import, import, euh, information capitale parce que dañu war a évoluer dans notre médecine on ne doit pas avoir aujourd'hui ça veut on ne doit plus faire parler de communication de la santé on doit faire le marketing de la santé pour le war a toll tey le marketing de la santé c'est à ça que nous invite le Covid bu ñu intégrer ce marketing de la santé alors à ce moment-là toutes les personnes susceptibles d'avoir des maladies à partir de 35 ans mën nañ def ay liggéey yoo xamante ne au moins ñu xam pour mën kii am na ay liggéey DER tu affaire bi mais tey chaque Sénégalais doit avoir une carte de santé. Mhm. ne serait qu'à ou à francs boo xamante ni dana lay accompagner pour ne pour ne faire que prévenir un cancer pour ne faire que prévenir un diabète ainsi de suite. Mhm. fi am le véritable marketing de la santé qui te permettra d'avoir un peuple en bonne santé. tout le reste. Bon, euh, j'accorde alors euh, à mettre aussi oui. son, droit, son de point virgule comme yéen. Ouais, justement parce qu'en fait bah, je voulais juste aborder un peu parce que les constations techniques am ma pour apprécier mais euh, je pense que euh, feebar bi am na yu mu révélé. Mhm. parce que Malal nee na il faut ñu xoolaat suñu bopp. oui euh, on a un problème de leadership. Mhm. on a un problème de crédibilité des communicants. Yes. maintenant. est-ce que cela. Mhm. parce que les populations mm. certes am nañu responsabilité individuelle mais wax nga ko sànq am na ñi nga xamante ne gëmuñu ni feebar bi am na mais ku gëmul ni feebar bi am na kooku moom soo koy jël mesure barrière c'est comme quand même naka lañ koy waxatee encore euh, euh, euh, te un caillou dans la mer du am mm. benn effet donc je pense qu'aujourd'hui quand je parle de leadership je parle pas seulement de leadership politique je parle de leadership dans tous les domaines mm-hmm. et je pense qu'aujourd'hui lu ñu seetlu Sénégal Euh, nit u gëmatuñu kenn. et loolu pour man fondamentalement c' est la faute au leader. donc euh, questionnement yi mooy xoolaat suñu société. comment ça fonctionne et cela la responsabilité du leader et aujourd'hui comme c' est l' état moo garantir loolu sensibilisation pour conscientisation et eh bien on ne peut qu'interpeller l' état au-delà des citoyens certes qui a une responsabilité. mën nañ dem ci ndox mi wala. bëgg euh, naa tuuti ci li Zator wax sànq ne. jël na point virgule moom waaw borom euh, xam-xam yi nekk ci wàllu paj bi. une minute si c'est possible. digle wuñ ne ñu yokk lim bi ñuy caaf. loolu li koy euh, dindi mooy ki nga xamante ni mooy docteur Safiatou Thiam. Hmm. nga xam moom moo yor kuréel gi xeex Sida. génn na fi wax ne nañu yaatal caaf gi ki nga xamante ne moom mooy coordonnatrice wu hmm. dalal jàmm wax na lu nu mel ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. li ñu wax foofu moom mooy ca njëlbeen ga ndorteel la bi mbas mi accès Sénégal booba bu fekkonte ne jël nañ matuwaay buñ ne Sénégal amul li nga xam ne moom lay laaj ci ay matukaay ngir mu mën a yokk caafi ndaxte bëri na fi ay kuréel yoo xam ne atum 2012 fii mbënd mee taxoon ñu dindi fi euh, lii di euh, Sénat lii yaakaar naa ne mbënn mi lenn rek la laaloon ci askan wi mooy ñi nekkoon ci aneer gi maanaam banlieue bi ak euh, yeneen gox goxaat waaye lii dafa daj Sénégal yëpp. am fi ay kuréel yoo xamante ni sénégalais yi yëguñu ne sax kuréel yooyu am na tey kenn yëgu na sax ñu ngi dox muy ay conseil économique social et environnemental wala conseil des collectivités territoriales ñu mënoon a jël loolu yëpp dugal ko ci li nga mm-hmm. xamante moom la laaj ngir ñu mën a caaf nit ñi bu ñu mën mënta dajal Sénégal xool fi nga xam ne ni ko buuba wax sànq fu mel ne ndakaaru ak euh, njaarim foofu noonu ñu jéem a xool bu ñu mënta lesere ñaar yi maanaam quarantaine ñaar yi gox yooyu noonu hmm. ñu mën faa yokk caaf gi mu ngi mën a xam li mu ngi nga xam ne ñoo lesere ak da wax ne apparemment waaw dégg jàng naa si alors permettez-moi xoolal caaf bi nag yokku na parce que tey ji on a à presque d'accord deux mille caaf oui mais bon mais <laughs> ah, lu mu yokk yokk doyul ngir ñu mën a peeg feebar bi xam fan la toll. mais yokk nañu lu mu yokk yokk doyul de toute façon on est tous d'accord ñi ñi ñi wàll taxamuñu euh, vous plaît permettez-moi de passer à l'eau Pape Djibril yow laay njëkk jox mm. askan wi temps